If it is the other way around, it means you have money with GRA which should be refunded to you. But the refund is not going to be immediate. There's a reform process, and we have a program for that to enlighten people on the reform process. Then there's another obligation also, which is called the issue of debit or credit notes. Mm -hmm. Debit and credit notes are just adjustment documents when you make a sale or a purchase and for certain reasons you need to return the, the goods because they are not good or other reasons, mm -hmm. adjustments have to, done, have to be done on the amount that you should pay to the buy to the your customer if you are buying or that you should be paid if you are selling. Okay. These are debit and credit notes because if the amount reduces, it have to it will affect the VAT that you've charged mm or that you will pay. So these Debit and credit note are the documents that you need to issue to correct that transactions. Okay. So basically, these are the obligations of a registered VAT taxpayer. Okay. Uh, thank you, uh, sir. Uh, mm -hmm. uh, to add something to what um, sir has been said, saying, especially when it comes to quoting um, the quotation of prices, mm -hmm. uh, you know you'll have that VAT element in the price. Yeah. But that VAT element in the price is non-negotiable at all. That means you cannot come up to the counter and you pick a good which is costing hundred dollars, mm -hmm. and then there is a VAT element in there because it, it should be very clear when you say it should it, it is inclusive. VAT is inclusive doesn't mean mm -hmm. you just say hundred dollars. You come and tell the person pay hundred dollars. It should be hundred dollars clearly spelled out. Mm -hmm and you also have that VAT element also clearly spelled out. The customer should know. The customer should know it, okay. especially when the receipt has been given. If you look at the receipt, you will find out that you'll have that price element and also the, the VAT, VAT, element of the total price. Okay. Right? But that VAT element is not negotiable at all. You cannot go down, It cannot go No, up. you cannot go up to the counter and then tell the, um, tell the business person, can you reduce this VAT for me? Okay. If, if you want to reduce the price, you can, but you don't reduce that VAT element of the price. It is fixed. It is non-negotiable at all. Okay. Yeah. Okay, that's, that's very good. Uh, Mati dégalu ki wa mari my mm-hmm. mën nañu wax daal warugal hamne. yooyu la li ah, ñu nga xam ne ñooy lifin vaat waaw wargal yi nga xam ne ñoo ñoo tegu seen kow xam naa di nga di nga war a mën a leeralal suñ mbokki olof yi nga xam ne ñoo déglu fu nekk ni waaw ñi nga xam ne ñooy register xam nga waxoon nañ fi ne registration bi ñi nga xam ne ñu ngi business te goods yi ñoo jaay dafa nekk loo xam ne dañ ko war a tax suñ mm-hmm. amee threshold yi one million muy benn million yi dalasi mm-hmm. ñu ñu luwaa bi dafa wax ni dañ war a ñëw register su fekkee ne tamit amuloo one million te li nga jaay euh, à taxable mm-hmm. boobu te nga am five hundred thousand and above mm-hmm. boobu tamit da nga war a ñëw register waaye boobu voluntary la it's not a euh, su ma amee comme am bitig suma boori kër comme bitig yu nekk nii si mbéere mm-hmm. euh, si kër gi façon yooyu war na ñëw mën a register pour VAT waaw ñooñu ñoom soo gisee ñu def registration bi sax administrative procedure waaw administrative procedure because duñ fa mën a boole business yëpp moo tax ñu def ñu catégorise ko one million for mandatory mm-hmm. uh, five hundred pour voluntary su dangaa gis ne su boobaa dangaa gis ne business yëpp duñ mun a bokka parce que business yëpp suñ bokkee VAT liggéeyam dafa naxari because every month comme ñu ñoo yu ko faal da nga war a file da nga war a keep records te biti gi pôle yooyu noonu ak lifini ñooñu xam nga dia so disorganized soo leen bëggee boole si VAT bi <laughs> xam nga dafa jafe xëy na indi long term dinañ xalaat pour xam nga widen registration base bi waaw waaye comme ni mu ko waxee ki nga xam ne registre na ba pare ah, ku nga xam ne am na threshold bi muy one million dalasi moom dafa war a ñëw mu apply registration si commissioner general bi den su fekkee ne registré nañ ko ba pare dinañ ko issue with a certificate certificate boobu mooy wane ne fu mu nekk luwaa bi dooleel na la pour nga charge VAT si sa bagage yi ak sooy import ak sooy jënda locally so ba pare ñaareel bi tamit certificate boobu da nga ko war a display sa business premise yëpp sa place bi nga defee business su fekkee ne benn biti nga am dafa war a nekk su fekkee da nga am yeneen bitig yeneen outlets tamit ah, certificate bi dañ ko fa war a dis business ñetteel bi mooy da nga war a kii proper records mooy sa business transaction si li nga jënda li nga jaay li nga fay yooyu yëpp da nga ko war a record mm-hmm. because si VAT bi end of month bi danga nga war a tali sa records nga tuutal li nga jaay ak VAT bi ñaata la mm-hmm. bi nga import um, li nga li nga fay VAT bi ñaata la mm-hmm. ba pare su weer bi dee di nga seet li nga jaay vaat bi ak li nga fay si vaat bi banoo ëppa différence bi loolu nga fay si yi su fekkee ne li nga jaay mu ëppa li nga fayoon bi nga import ak bi nga jënd sa bagage mm-hmm. su boobaa da nga ñëw fe ñu fay si waaye su fekkee ne other way round bi la mm-hmm. li nga fay sa local imports ak sa um, local purchases yi mm-hmm. moo ëppa li nga jaay si weer bi su boobaa dafa nekk ay négative balance boobu su booba da nga war a am refund waaw refund la waaye refund bi comme ni ko Saar waxee. bu nañ am special programme pour loolu. ba pare ba ji ngaa jaay yëpp marchandise yi ngaa jaay yi ngaa display yëpp dafa war a nekk VAT inclusive mooy price bi soo ko fix danga war a def price bi ak sa profit ak VAT bi yëpp den nga wax ne good bi naa am laa ko jaay nekku ne yow da ngaa def sa. charging mécanisme yëpp ba pare nga mm. ñëw ne VAT bi lii la. waaw sa marchandise moom sa marchandise waaye VAT bi moom. bon waaw once you a registered loi bi loo jaay war naa am VAT component foofu noonu waaw then ba pare invoice yi lu am solo la invoice mooy kayit bi nga xam ne soo ko jëndee soo jëndee bagage dinañ la ko ne lii nga jënd nangam la VAT bi nangam la yooyu yëpp danga ko war a comme ñi jënd si yow te register nañ mm. war nga leen koo jox mm. pour ñoom tam ñu mun a def seen claim si ak seen lifin yi yeneen record su fekkee amuloo invoice ah doo mun a xam ndax war naa claim refund o waruma claim refund so da gis ne dafa jif parce que doo ñëw rek ne da ngeen ma war a refund foog nga am loo ko baagee loolu mooy nekka invoice yi ak na su fekkee import la custom entry documents yi yooyu noonu so loolu la ba pare lu gën a am solo si eh, ki nga xam ne register na mooy return si return bi every end of month da nga war a file form la boo xam ne da nga koo fiil mm. nga wone ne lii laa jaay si weer bi lii laa fay suma import au local purchase VAT bi lii la nga ñëw submit ko ba pare xaalis bi nga war a fay tamit nga ñëw fay ko su fekkee loolu amut mhm. loi bi daf la penalise nañ la charge interest ak penalty soo féelee su fekkee ne file loo return si end of month bi mm. waaw so return bi moom lu am solo la si si si nga xam ne dafa register ah, nañ jël benn call am na ku nekk si line bi sax waxoon nañ ne ku bugg a call rek mun ngaa call fu mu nekk nii 437 3910 waaw. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen def. yaa ma rek. yaa ma rek. waaw ah, tur bi. Ah, man la Abdoulaye. waaw Abdoulaye ñu ngi laa déglu da nga laajte. waaw comme affaire yi lañ ci a ndax affaire yi lan VAT la ñu wax value added tax ah ok value added tax mooy tax bu nar mu nar a moo war so ñun man la waaw waaw xam taxi bi ñu dee fay KMC lunch bi ñu daa xama taxi daal ah. waaw soo dañ dee ñëw di ñu laaj euh, mais bi euh, machine bu nekka mm-hmm. dañ ko dañ dee wax price bi lii la lii la nii la compté machine yëpp ah. ok soo dam ndax sob sob bi lañ war a xool fay ndax ok euh, machine lañ war a compté di di wax ne nangam nangam waaw soo loolu daal ndax ma xala daal ma ne woon ma xool leen pour laaj leen ok hmm. ah. xama nag waaw ok mu ngi mel ni nekkuñ si programme boobu noonu parce que programme boobu ah, boobu waa kii MC ñoo ko dee def ñun ñu ngi jógee Gambia Revenue Authority muy ah, office bi nga xam ne moom la nguur gi taxawal pour mu feyeeku tax yi nga xam ne ñoo nekk si si dëkk bi moom KMC ñoom tam am nañ seen tax rate ak yeneen yu nga xam ne ñoom lañ lay si marché yi ak ñawkat yee yooyu waaye xam naa ñooñ tam xëy um, na ok uh, viewers if you uh, you can now call the number is 437 3910 if you have any questions or if you have any comments you can call uh, you can you can ask questions here now Sidi Kane ko matiya fo ñaameŋ wolon sartol mi yalon ko mo min ñanta registre la ñanta ñanta wo ñanta timmande la Okay, let's let's take a call. We have another caller. Hello. Hello. Hello. Yes, hello. Hello. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Okay, can, you, can, you, can you just reduce the volume of your TV set? A little. Okay, Hello. You have a question? Yeah, can you hear me now? Yeah, I'm hearing it clear. Please, uh, what of